suñu mbokk suñu xarit suñu naataangoo mooy galas li nga xam ne moom la NGB bëgg mu nekk suñu frère woote tey ñu wuyu si ko. bu galas di suñu artiste di artiste boo xam ni dafa confirmé dans la musique sénégalaise donc sur le plan international tamit vraiment mu def ay preuve am donc tey bu xewlee lendemain Korité woo nit ñi ngir jox leen ndëwënal yoon la ma ñëw jël si sama ndëwënal loolu mooy suñuy tànk tey. sama teewaay fii mooy Mame Fallou sama xarit la sama góor la man ak moom dañoo yàgg cristal tey boolewuñu fekk nañ ko fu nekk mu nekk góor gu baax nag comprendre nga ku ñu bëgg ku ñu yëg ko xam ñun ñooy kan. looloo waral sama teewaay fii. waaw teewaay bi ñëw wuy si galas xam sunu gaan sunu xarit sunu nit xam nga ñun lu xewle day bàyyi léppam ñëw xam nga waaw te dafa bokk sunu groupe quoi waaw te galas bu xewle rek benn tali ñaari tali Grand Dakar ñëppay génn. Euh, dañ fi ñëw nit moo tax mu bëgg ñu lool donc bu xewle yoon nañu teewal ko. en fait euh, galas moom suñu grand bu bien la suñu gain la suñu lépp dafa am bésam moom faaw ñu teew Galas dafa nekk suñu nit nekk suñu ci bu baax yàgg ak moom NGV benn la bu ñu wootee ñëpp dañuy takk jóg loolu la rek waaw d'abord sur le plan culturel man maay président je suis le président de la commission culturelle et l'artisanat de la commune de Biscuiterie donc euh, ba tax na euh, manam lepp lu mu yeung lu ne man lu may yëgal la waxtaan ceeg man ba pare doo ko amal moo tax tey bu xewlee lu mel nii foog ma bàyyi samay nelaw comme ni nga ko waxee tey la sama lal ñëw fii teew gunge ko ba mu baax. waaw relation bu ñu am sama mag mu sama dëkkandoo yar ñu xale ba mag ba pare ñu bokk association des acteurs culturels moo tax tey ñu def délégation ak. au nom des acteurs culturels de la commune de Biscuiterie ñoo soutenir waaw Galas dama nekk nit koo xamante ne man sama xarit laa euh, relation bi ma am ak moom mooy man fu mu nekk dama ko fay fekk parce que sama artiste la man maa ko bëggal sama bopp moom tamit mu xam loolu comprendre nga Galas man ak ñoom ba brodewee la woon entre 1000 francs plus cons ba tay fii entre 5000 kon loolu xam nga yàgg na moo tax ma dagg samay lépp tay ñoon dama koy fekk si fii. waaw moo tax affaire bi demee nii. non galas moom mooy suñu galas quoi ñun mooy suñu Wally Seck. mooy li ma la wax léegi rek galas suñu waay la sunu xarit la nekkul waay bi moo ñu boole moom quoi dañu bokk lépp. dañu bokk groupe xama en fait semaine bi passé bi ñuy def suñu ndogu yi galas mi ngi ci xama bàyyi léppam moo tax foog ñu bàyyi suñuy nelaw bu ñëw wuy si ko waa galas suñu càmmiñ la suñu càmmiñ la suñu xarit la looloo waral. non ñu nag moom yàgg na trop depuis ëpp na ay 10 ans ñu nag moom yàgg nañ bokk nañ ay ndogu bokk nañ affaire bëri moo tax bisam moom par force suñu biir tey nekk wax dëgg yàlla bu bu bee tamit grand bu am coloré grand bu wóolu ba baax tamit. waaw parce yàgg dëgg la dañoo galas du tey boobu ay xale ndaw lañ fi àndal moom lu tax ma ne la moo sa caméra galas bi mu la te dañoo dañoo sonn dañoo fanaan liggéey événement bi amuñu benn jot. waaw galas moom euh, dan naan doomu ñay doo ko ñaanal mu rëy. Galas yaakaar naa ne ku koy dégg mu woy xam na mën na mën na woyee fépp yaa ngi dégg Galas day woy mbaboor Galas day woy musique traditionnelle Galas day woy moderne Galas day woy folk musique Galas xeetu musique yëpp lay woy li des rek mooy waa Biscuiterie yi waa Grand Dakar waa Sénégal ñëw ñëpp ñëw jàppale ko te xam ne kii future musique sénégalaise mu ngi ci loxoy Galas loolu man maa leen ko wax waaw li ma koy wax rek mooy zéro faute mën na way macha allah moom boo ko déggee di nga dégg naandaan pire te nit ñee ko bëgg bentalee ko bëgg ñaatalee ko bëgg Grand Dakar ko bëgg koy wër modeste bi mu nekkee ak taalibe bi na fa nekk rek ndax dañ ko sopp ndax dafa dafa yëgul boppam ba pare dafa baax ba pare mën la muy amee lu ma koy yokk mooy na gën a góorgóorlu fonk ay fansam parce que àdduna bi kenn moomul kenn fii ba ma fii ñëw dama dagg sama xaalis nga moom mayu ma entrain mais gis nga àdduna boo ci nekkee da ngay fonk say nit comprendre nga parce que doolay jën ndox la doolay saxaar raay mais doolay waykat bi public bi boo fonkee public bi foo dem dañ la fay fekk war na yëgati di woo public bi di leen laaj lu ngeen nekk ba yéen a ngi si jàmm lu doon soirée rek mooy tax ñu gisante man ak moom sax dañ koy bu dul soirée mais bu dul man sax mais samay moroom dañ koy kaas kalas na yëgati di leen woo comprendre nga lu ñu xewle lu ñu xewle nag moo ciy gën man moo xewle man galas laa ci sentir moom laay woo mu ñëw jàkkaarloo mais na gën a am pas non kalas moom instant bi moom ah, waaw bu mu teggi quoi ndax instant bi ñëpp pare nañ pour moom benn tali ñaar Dakar fu mu woote incha waaw te sama gars ni waaw ñëpp waaw mafia bi ñëpp ñëw nañu waaw. di ko encouragé rek di ko wax que mu dolli bu baax te xam ne ni def neex na nit waaw mu ne ko mu jàpp mu gën a dëgër rek ndax lépp loo gis moom commencement bi day metti mais après yàgg-yàgg rek yàlla dina ñëw daal te télé bi nag mën na woy mën na ko te yàgg-yàgg day téew ñu ñaari tali wallaahi wallaahi day téye aar bu baax Sénégal yëpp da koy téye suñ ko yokk mooy mu gën a góorgóorlu gën a jàpp ay nitam ay nitu démbam bu xàmmee gën leen a jàpp waaw xam na ko sax mais dañ koy dolli rek ba pare gën a génn bari

donc wax dëgg sa yàlla loolu dañ ciy kontaan ndaxte suñu mbokk artistes ngi ci muy Pa Moussa donc yéen vraiment ñi siiwal ak fësal li nga xamante mooy suñu liggéey ñu ngi leen di remercier d'abord